Sarr c'est bon Cheikh Sadibou Sarr ndaysaan ak Adama Thiour ndaysaan Kaolack Cheikh Sadibou Sarr Fatick ndaysaan Cheikh Sadibou ñu ngi ci individuel yi mbokk yi moo def ceinture rouge Adama Thiour moo def ceinture bleu def ngemb bu rouge Cheikh Sadibou Sarr def ngemb bu bleu ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Cheikh Sadibou Sarr ndaanaan la nag ci làmb ji bi mu commencé ba léegi mu ngi wane boppam waaye mbokk yi final individuel bi ci catégorie daw na jël ko daw na jël ko dara daw na jël Adama Coor bañ ndaysaan wure nañ daa mu plaqué ko mu bañ du yomb ñaari xale ay jàmbaar lañu ndaysaan ay bërekat lañ ñu ngi lewaatoo ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo daw nañ jàppante ndaysaan Cheikh Sadibou Cheikh Sadibou Adama Thior Adama Thior Cheikh Sadibou Sarr ndaysaan Adama Thior Cheikh Sadibou Sarr Cheikh Sadibou Sarr daw na jàpp na ko daan na ko wala déet daan na ko Adama Dior daan na Cheikh Sadibou Sarr Adama daan nga xale mën a bëre waay oh Adama 66 kilos bi daan na ndeysaan Adama daan na ko Adama Dior individuel 66 kilos bi moo ko jël ma